gaa yëgal di sant di gërëm gaa naa sant naa ñëpp maa ngi sargal ñëpp kontaan naa sama xol sedd parce que ku nekk lii ngay ñaan yàlla am góor gu baax mu bëgg la mu takk la yóbbu la këram parce que xam nga tey damay sëyi ci guddi bu leen dem nag ndax seetoo sedd da ngeen koo war a jël dugalaale kon toog leen jël seetoo sedd di kontaan ci yéen nag yéen ñëpp ndax presse yëpp samay xarit lañ waaye rawatina Medoune Diouf ak Paate dama yàgg ak te presse yëpp samay xarit yow mbay ni ma mel ak yow ak jaañ naar mi kenn du ko wax lu ci bari kenn waxatu ko Rose la fleur c'est ma fille ñëpp presse bi fi ñëw ku ma limul rek damaa xamul sa tur mais dafa am ci ñoo xamante ne dañoo spécial ci ku ci mel ni Paate mooy people 221 dafa tabax studio ba mu yegg jël sama photo def ko boobu xale siiwaguma moo tax bu ma ne internet yi dama leen di tere dañuy yàq xaw mu ne ma bul tere kenn woowal ñëpp ne ñëpp ñëpp moo medun yëpp ñu rafetal ko te xam nga lii neexu waaye damay nangu parce que sama mbokk yi yëpp a ngi toog ngeen taxaw seen kanam di laaj mu leen saf waaye dama leen koy nangul parce que maa ngi yéen ñoo bokk ndey ak baay Ablaay 221 ci suba ba tey mi may woo yéen ñëpp ñi fi ñëw aw ma seen fay parce que dëgg la bëgg ngeen liggéey mais déplacement bi dafa metti te fi ngeen jóge dafa sori fii laa mënoon a woote ndax sama ndey ju baax ji fii la wàccee liggéey du ma ko defee àll damay ñëw fi sama yaay wàccee woon liggéey sama yaay yi muur ma fi ma sëy may gërëm nag sama yaay yëpp ëttu kër Déthié Ndiaye dem kenn des ñëpp ñëw na ëttu kër Ibra Mbuur kenn des ngeen nii sama nit ñi ñu toogee gis ngeen mun amee ngi nii toog mbay roqee daba njaay doomu kolle yaayam moo ma jox mbubb bii ma sol moo tax ma sol ko ma ni ko kolle boo ñëwee sa mbubb laay sol ñoom mbay Babacar mboor mee toog sama doomu bàjjo mbay Babacar moo ma mag yi moo defar sama bopp su ma feebaree ci kaw lalam laay mooy sama yaay yéen tamit ma di leen ñaanal bu baax ak fecckat bàyyiwu ma kenn. waxoon ko nga bëggoon nga mu fekke ko ndax lii nga doon ñaan yàlla tey lan nga yëg. waa mbay man ku ma xam-xam ne auparavant daleewu ma woon nii waaye nit lu ko royul ko rayul rek tiital ko baa mu yokk ko jom dafa am lu rëy lu mu def ci man sama yaay. demam ndax bu may sonn di góor góorlu moom moo taxoon su ma sañoon lii mu fekke ko su ma solee toog am boroom kër su ma sañoon sama yaay fekke ko dëgg la je suis forte et tout mais elle me manque et merci beaucoup tout le monde. bëgguñu nga jooy vraiment dañu waxtaan Sénégalais yi dañu la bëgg dañu lay safoo di la faale. boo defee nii ñimi muy ndax xari dina bari ndax ware ah ware ñëpp la mun a ñëpp ko safo mais tey comme ni nu ko waxee rek yaa ngi war a dem sa kër borom kër ku nekk xam na artis yi ak li ñuy teg seen kaw tey nag soññ la yab la ci boo àggee noo fa war a def. bul jooy di yàq xew yow tam da sañ sa bul waa di ñaan rek sama yaay bi mu amee 13 ans la ko sam papa jël moo ko yóbbu Touba loolu laay ñaan. yàlla bàyyi ma ak sama borom kër ba mu yóbbu ma Touba maa ngi jaajëfal ñëpp. mais sama papa sànq laaj naa ko mu ne ma plus de 15 ans yaa ko yoral dépense wax na ba tuuri xéwal sax nee na gërëm na la sant na la ñaanal na la wax na aussi bis bi mu lay woo taaj la taaj sa yaay ci bi ngay décider nekk ci milieu bi dafa ko aaye woon au début mais dañoo dem ba ci biir mu gis ni yaa ngi ko ci amal njëriñ mu ñaanal la ne la demal li nga ci am ndam sa papa. waaw moom sama damaa nekk jigéen mu nekk góor rek moo tax ma dàq waaye maa moom ñoo nduroo teg teg sam papa je l'aime beaucoup il trop soutenu te nit ku baax la ku bëgg njaboot ku mën a muñal njabootam muy góor gu baax yaruñu si tiit yaruñu si bëggee man lu may siiw siiw samay parents mosuñu ma laaj cinquante mille francs te pourtant damay joxe lu ko ëpp ci mbedd bi ñoom ñoom ma yoroon dañoo gore rek ndax noblesse bi nekk ci man ba àdduna di ko wax sama famille ñoo ko def ci man maa ngi sant ñëpp tey sama xol neexul. kon nga def témoignage si Boubacar Diallo Fatou fecc kan nga mais animatrice nga en même temps euh, tey ji man personnellement xaaroon naa bub su ñëw fii accolade la dalal la euh, lu tax bub su gisuñ ko. waaw Boubacar malheureusement dafa am décès goroom dafa gaañu en même temps nekku fi dafa dem Londres. parce que gis ngeen Pape Diouf ak foire bu mag boobu ñu fay tëgg ñëpp ñi ngi Londres te publicité boobu daw na un avant bés bi di am et que travail passe première tout ce que vous avez vu xam nga neen du doole faatu Waré te li ngeen di gis suba mooy raw tey ndawtal la rek lii yëpp sama xarit yi ñoo ko def surprise bettee ma ko bugguma woon sax solo parce que tamit man yëfi yaay Fall laay def tey ci liñ ma dugal nii def ma jaaxal ndax man yaay Fall laa lu nekk mun naa def na ko tuuti ñu xeex mais bu subaa nag mooy raw suba moom ku tardé HLM tardé nga lépp waa ndax sama borom kër tamit teral na ma ma di ko sant di ko gërëm moog waa këram waa kër Alaaji Paata Jaañ gépp maa ngi leen di gërëm di gërëm sama goro ajaratu Mariama Mbay maa ngi gërëm ñëpp suba daal incha allah mooy raw di gërëm presse bi kontaan naa ci yéen yàlla na seen jàmm yàgg nga ñëw rek toog yaru ni tey di ree rek. <laughs> waaw dama kontaan rek. lu turu baay bi ak fecc ci nii xew Fatou Wele bi yaa ma gën a lan nga yëg bi ñuy ñuy maye mën naa ni sax sa seex Fatou Wele ngeen déplacé wu dakaar ba Kër Massar sori na ma témoignage ngay def ci moom. mag du baax la mag du ñàkk ci ñaan mag du mën a wax ay rakam dëgg. bu ñu dajee mu jël ñu jubatuñu Fatou Wara mu nekk nit koo xamante ne day ci seex la ñaxanaay lay tëddee ku baax wax dëgg yàlla loo moo tax ñu bàyyi suñu lépp ñëw tay wax dëgg yàlla. ñaar yéen a bi mais bokkoo leen génération ah, tay jii yéen seen génération ak génération moom dafa xaw a wuute yéen ni ngeen di moom ni muy sauvisé bokkul yenn saa yi lan ngeen di waxtaan ci ay conseil waa des fois nag am na nu ñuy solo mu woo ñu wax ak ñun am na ñu feccee mu woo ñu wax ak ñun wax dëgg yàlla. loolu moo tax nag tey jii nii nii am na am na nu muy mel nii ñu am mbégte ak contenté parce que teg nañ ci yoon daal bu ñu woowul téléphone mu ñuy message mi ngi naan maa ngi leen di xool maa leen di gis kon nag amuñu amuñu droit def erreur ndax moom nit ku baax la te ku mu téye di la won yoon faaw nga jub wax dëgg yàlla. Fatou Sarr daanoo toog semaine te doo dégg buzz Fatou Sarr mais fan yi da ngaa teg sa tànk lan moo xew xale yi ñu ngi ñi ngi yëngal mais Fatou Sarr daa nekk si ruqam lu xew. waaw Fassana noonu la mos a mel nag Fassana mos a nekk ci rukkam di liggéey loolu laa mos a mel moom wax dëgg yàlla. Matar Momo Dieng. mi ngi nii toog. Momo rek ngay feccal. non feccal moom Momo kese tonton Médou xam na li muy wax. tàmbali la gis ngay yéeg ci seenu Wally wala Sidy Diop bëf wàcc du ñuy faral di ko gis nga koy def. ba léegi nag mi ngi am. day fekk des fois may xat ba léegi mi ngi am comme ni ma ko waxee ndey ji seex man ki may liggéeyal fiirul fiirul wax dëgg yàlla xool bu la yore sax day kontaan bu ñu paree rek ñu continuer. a xew nag Momo Dieng COP 21 xale yi di leen wuyu si takkusaanu Ndakaaru yéen leen ko téye léegi euh, lan ngay yëg boo nekkee ci seen Momo Dieng nga gis xale yi fees dell ba dayam ñoo xam ne ñu ne si bunt bi duñ mën a dugg yow en tant que fecckat euh, lan nga yëg. kontaan nag kontaan da koo mérité. ndax wàññi boo gis rek ci benn lay commencé te yàlla bu la tàccoo rek faaw nga fecc parce que man ba ma yéegee ci seen bi gis mbooloo bi yooyu noonu yëpp sama xol day sedd damay bëgg a joxe lépp lu ma am ba woon ko ne ni mu mënee way rek am na fecckat bu mën a fecc na bu nekk ci wetam dëgg neexul. alors moom moo recruté keneen. non ragalu ma loolu tiitu loolu sax. moo beneen fecckat bu xew teg ko sa wet. tiitu ma loolu ragalu ma loolu ndax xam naa ni moom moom xam naa ni fecckatam gay na la. te lu ma maa tamit moo bëgg fecckat ba mu coow. xanaa gisoo waali fecckat ba mu coow mu woo la. fecckat ba mu coow mu woo la mais moom moom fecckatamam dafa bëri coow dafa bëri affaire day def lu ndaw sax xale yi yëngu day def lu ndaw sax xale yi waaw tàq damay soo dégg sax xale yi solaat ko je suis comme ça naturel wax dëgg yàlla. lan moo tax tey euh, fecckat yëpp ñëw nañ. mais am na ñoo xam ne nag wax dëgg yàlla gisuñu leen fi tey euh, am na ñu ne ma nag suba am na moo tax ñooñu ñëwul euh, am ngeen natt aussi boo xam ne tous les mercredis lay am euh, lu tax gisuñ fi ñooñu waaw am na ñuy ñëw am na ñoo xam ne dañoo réer na ba ñuy départ départ dañoo réer ñu ngi ba Tivaouane Peulh am na ñoo xam ne nag suba la ñuy ñëw mais am na xale yoo xam ne ñu ngi ci yoon bi di ñëw moom wax dëgg yàlla tey moom kenn du manqué. Massar kontaan na. maa la gën a kontaan di kontaan tonton Médoune di waxoon nag Jami Gueye namu nañ ko. Ah, yaa wax loolu. <laughs> nañ ko Jami. sama verre yi ma xool. sama say verre tonton Médoune verre a xool lu muy mel. moo jonga ma nag. du deex. mais yow kañ ngay sëy. yow waa ji kañ lay ñëw yow. <laughs> mais Yérim. waaw mais. baal nappe. leen ko ci seen bi. boobu léegi yaa may napp <laughs> loo yëg tey si si mariage wu euh, Fatou Waré. damay nuyu ñëpp di nuyu tonton Medoune di leen nuyu di nuyu Sénégal yëpp tey moom contentement ku ñu xool xam ne contentement rek la ñu am mbégte mbégte bu yaatoo yaatu. yan témoignage ngay def ci Fatou Waré ak nan nga koy conseiller parce que mi ngi dugg ci néegu sëy yi léegi jeeg la day sëy. Fatou Waré moom dama ko conseiller dama koy ñaanal parce que ku ko xam-xam ne fulla fayda mi ngi ci moom. donc dañ koy ñaanal rek sëy bi nekk sëy yuñ takka ci aras mu am ci njaboot gu barkeel yow nag ay neneen kañ ngay dugg yow it célibataire gi yàgg na waaw bu jotee rek yomb soññ ko mi ngi lay seetaan <laughs> bu jotee rek yomb woo ko bu jotee yomb